Gris 2 nuyoo bi am na solo mais da bu damay ñëw ak yow rek tout droit ci làmb ji parce que yaakaar naa ne euh, am na solo trop pour nga fàttaliwaat nit ñi euh, ban année nga njëkk a takk ngeen mu bëri ak ñaata combat nga bëri pour ñu mën a avancer ko. loolu moom dinaa ko jéem a suivre bu baax mais parce que dañ see dañ ciy kii tout toujours quoi trompé wu parce que man année bi juste xaw ma ko mais xam naa daa ay diggante 2014 la affaire yooyu defagul nañ 10 combat am ci benn défaite waaw. dix combats benn defet mu mel ni kon loolu daa mel ni bu ko comparé ak euh, euh, maanaam kuy bëree maanaam bu ñu jëlee lool teg ko daa mel ni fi nga jaaragu yoon wi daa mel ni même bu dee am nga ci défaite tamit daa mel ni normal na de wala. waaw ñun moom xam nga rek lu ñu yàlla xéwalee rek ba pare sport moom fii ak def nga loo xamante ne defagoo lu kenn deful rek man pour man defagoo dara man moom loolu laay jàpp man moom milieu bu ma nekk fii ak li ma ci jot def am ku ko defoon rek kiiwuma suñu yéene mooy yeggoon tegle affaire yi ba nga xamante ne dañuy baat record yi mais yàlla moom jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ni mu ko defee noonu la ñu neex nañu tamit waaw. ni mu ko defee neex na leen mu mel ni ci ki mu ko defee fi la ñuy ñëw ci combat bi nga mujj a bëri sa diggante ki nga xam ne nii moo di rëg-rëg avant combat bi dafa am coow ci biir bi bëri bi tamit après combat bi sax coow daf ci topp sa diggante rëg-rëg lan moo ci nekk ba coow li débuté combat bi biir bëri bi après bëri bi coow la lu continuer waaw ah, coow li yaa na buy am si nit ñi la mais man moom toujours ni ma daan waajee ak la ma daan wax loolu laa wax ak moom contrat moo ñu boole woon ay xale la ñu woon amagul woon defet amaguma defet c'est normal coow lu bëri waaw ah, combat la woon bu amoon enjeu amoon important si ñu ñaar ñëpp ñu respecté woon ko yàlla xañ ma jox ko yàlla ko jik yàlla xañ la jox ko mais dañu ñëw ci biir combat bi tout droit biir arène nationale yow kere bi nga dugg si arène national rëg-rëg dugg si arène nga xool sa bopp xool rëg-rëg yow boobu arbitre souffle am nga yàqin ni kii war nga ko mën a imposer daan ko non facilement man moom man moom wax dëgg yàlla man moom yaqin man lépp lu may def rek pour man sama yëf la waaw man daal sànq daanuwuma wala gisuma contraire rek du ma gëm ne lii mën na nekk man pour man toujours rek man maa war a am ndam te loolu moom man moom wax dëgg yàlla fu ku ma xool rek mën naa sax wéet man dong di analyser mais bu ma jàkkaarloo nit rek dama naan tey moom sama yëf la kii du ma moroom moom. damay ñëwaat ci biir bëre bi parce que laaj naa ko rëg-rëg ci biir bëre bi nee na pied bi nga changé moo sax xaw a desuye li mu bëggoon a def mais boo tegoon pied bi nga daan teg la lay teel a daan parce que moom jàpp na ne mbir boo xam ne da koo desee ñeme yaa ngi dégg koo xam ne sax moom mu lëpp doole yu mel ni ki noonu yow rëg-rëg dafa lëpp doole ci biir combat bi wala changement de pied bi la wala da nga koo ragal ci biir bëre bi waaw xam nga rek am na lu ñu waxoon man ak moom ku ëpp doole ku dàq bëree ku ëpp fit yàlla nga daan te comme que moom moo daan yooyu yëpp dama ko koy bàyyeel yi moom lu mu wax waaw laay wax ba làmb boolewaat ñu waaw parce que nit ku nekk rek que le la ñuy wax le jour ji moom moo doon le meilleur yooyu yëpp mu wax may naa ko ko na jël waaw mais en tout cas làmb moo ñu boole woon bëre nañ ko moom la yàlla àndal bis boobu jël na ko changement pied bi tamit changer pied bi c'est vrai waaw parce que xooloon nañ ne moom pied droite la gën a mën a bëreel ko gauche ñu préparer loolu mais daal noonu daal la mënoon demee si ñun suñu gis-gis waaw noonu la mënoon a demee. da ëpp waaw damay nangu damay nangu comme que moo daan le meilleur gagne c'est lui le meilleur bis boobu. moo tax man lépp jox naa ko ko instant yi xëccootuma ak moom dara waaw moom mi ngi ci kanam maa ngi ci ginnaaw coo jubul na yenu lépp. kon actuellement mooy sa chef. waaw mooy sama chef pour l'instant waaw waaye nag njëkk njëkk ci géew taxut mu mujjee daal làmb daal mi ngi si sunu kanam yàlla na ko yàlla defal jàmm nag bu baax waaw maa ngay dégg muy wax mais yàlla na ko yàlla daal defal. comme lan man de wax naa ne ne maanaam yow boo ko daanoon làmb simple dootul am te ba pare tamit écurie Fass xam nga am sa mot bu mu utiliser da ngeen xaw a bëri wax quoi ça veut dire waaw ah, xam nga waaw nee dañu ŋaamu mais mais yëpp garaawul gis nga li muy wax noonu moo sauvé honneur u bëre simple bi ci man c'est vrai parce que daan naa ci ay trois champions d'Afrique moom mu ñëw nekkoon quatrième bi sauvé na l'honneur bi c'est vrai écurie Fass dañoo ŋaamu façon moo yooyu mën na ko di bañ utiliser parce que boo seetee suñu combat bi waajtaay bi yëpp mu ngi naan ma danga may jaxaseek nit ñi da nga may jaxaseeg nit ñi fekk ne moo doon waxee noo xamante ne mën naa ñàkk parce que ñun ñëpp ay xale lañu nekk ci buntu àdduna soxla lu bari te écrit ay baayam ñoo fa nekk ay moroomu baayam ñoo fa nekk ay moroomam moo fa nekk ay magam ñoo fa nekk te quelque que soit situation bi nu mu mënti demee du mu mës a taxaw naan caaroy nangam waaw mais moom est ce que waxewul ci côté bëre bi rek maanaam ci seen supporters yi wala yéen mbëri seen wax seen ay wax quoi est ce que du loolu rek lay wax. waaw Alpha rek mën na utiliser beneen mot bu dul boobu ndax làmb caaray face dër bi la mënul ñàkk wax moom comprendre woon naa loolu bu baax am na ay bam yoo xamante ni ci préparation doon nañu wax ay gros mots te garaawul parce que làmb la tey mi ngi nii man nag ni ma doon utiliser ak ñeneen ñi ma doon bëreel di leen daan moom mi ma daan noonu laay dundee ak moom contrat moo ñu boole woon. jeex na respect bu mat sëkk laay continuer dund moom di ko ñaanal nag lu mu bëgg ci làmb yàlla defal ko ko waaw mais mën nañ bañ a jéggi borne yi parce que ñu ñëpp ñoo far. Hmm. yéen a far mais ci biir làmb jooju dañ ciy des parce que est-ce que Gris 2 combat boobu parce que dégg nañ ñu ne que ni combat bi préparation bi ci waroon defuloo ko moo xam ci say côté entraîneur la moo xam ci côté ñi la wër ak yooyu combat bi est-ce que préparé nga ko carrément liggéey ci ñi ñu ci war a liggéeyal. mënul ñàkk xam nga bis moom boo jëmee ci bis boo xamante ne moom moo ko ay dérapage yu bari day am loolu mun see ñàkk moo tax am na ci ay mbir yu bëri yoo xamante ne am na ci yu daanul loon am mais bu dee ci wàllum jox xaq bis bi wala wàllum génnee xaalis wala wàllum daj coono musuma li ma ci daj kaar bi sax musuma koo daj ci combat ndax man komba ku ma xam-xam ne légèrement laa ko doon jël Euh, su <laughs> waagar sax dañ ma wax ma yow làmb sànq demoo dernière signature bi ci ngay commencé ñu xam ne kii day waaj ndax musuma fullaal combat du mu woon tee dox sama benn soxla mais combat bi teewoon na ma dox samay soxla teewoo dama ci concentré woon trop war nag ndax de yow du du yow loo farataal ak loolu mooy kii. waaw résultat positif mooy teg ay kii kiiwam moo tax li nga ciy dégg yëpp dangay ak da ngay accepté man lu nit wax sama àdduna waaw rek laay wax. parce que nit ñi du ñu xam quoi ku si nekk fële nga tollu sa analise nga yor ni la sa xel may rek loolu ngay wax mënoo ci dara wala da ngay accepter rek waa te faux pas yi ci am beneen yoon mu bañ ñu dal. ay faux pas yu ci am parce que après combat bi dégg nañ def mel ni benn déclaration boo def wax ka ni daal ku nekkuloon ci sa combat jàpp ci amul droit di la ci naan nangam sangam ñu dégg wax ju mel nii dafa am ñoo doon waxal ci sa biir entourage wala ci say kilifa wala. non non xam nga ñun moom mbër moom tàmmoon mbër dañ koo bàkkee lenn rek mooy bu heure bu ñàkkee rek day xalab day def lu bari parce que defoon nañ benn sortie ci sunu làmb wax explication yi ni mu demee titre bi nekk gris de tiré surface xam nga yooyu man ku ma xam dëggantaan di nga xamante ne sax mooy loolu parce que ay détails la woon rek da ngay expliquer wax nii la demee nii la demee ñu laaj la ay question xam nga defoon nañ sax ba nga xam ne giri nga xamante ne sama kilifa la sax jàpp ne sax comme dama ko sànni xeer ne cinq mois gisuma ko waajtaay bi yëpp gisuma ko. yow waxoo lool. noonu noonu demee noonu parce que dama ne ma Tafa Gueye waroo préparer combat bu toll nii Tafa Gueye dem voyager man ko non Tafa Gueye bu ma ko meree bu ma ko meree man yàgg naa waaj ay combat yoo xamante ne Fass duñ sax am fu ñu entrener duñ dajaloo man ak Ablaye Ndiaye comme bii la woon rek géej fii laa ko doon préparé ay suba teel laa doon contact dem daan ñëpp bëggee kontaan. kon tey bu amee ay failles yu ndaw ñu bëgg ne loolu mooy raison bi kon loolu man duma ko nangu waaw. kon cinq mois yooyu ñu wax ne yaa wax ne yow da nga ko toog gisee ko giri gisula ko loolu amul. noonu dama ne comme ça Tapha Gueye bu ma ko meree moom mi voyage dama ko yëpp parce que giri mi ngi woon fii ci dëkk bi te cinq mois gisante te teewul <laughs> combat bi. bu ma daanoon moom laay njëkk may nam li que loolu garaawul pour man quoi. est-ce que loolu war na ko mën a nangu cinq mois ngay préparer combat Gris nga topp ci ginnaawam muy sa mag gisoo ko est-ce loolu tamit nit ñi buñ ko déggee ne est-ce que lii loolu c'est vrai boo naan loolu quoi boo xamul dëggantaan ñun mais man suma carrière yu bëri man moom wéet man garaawul quoi ci man man daa en tout cas. mas na la dal loolu. non. plusieurs fois maa ngi lay expliqué ne la man ak Ablaye wala nangam nangam loolu yàgg na am quoi mais xam nga rek nit moom toujours bu defet ñëwee ci la nit ñi di wax lu bëree bëri mais man moom man garaawul. mais sa relation ak Gris dara yàqu ci wala. non sëriñ ak taalibe <laughs> sëriñ ak taalibe bu ñu jotee Gris moom sa sama kilifa la à vie a vie kooku moom loolu moom moom <laughs> moom bu taxawoon ne ma eh, bàyyi ma sax du ma ko waaw lu ma neex parce loolu moom. avant tout sax deret la loolu bokkul bokkul ak dara. bi nga daanoo ba tey toog ngeen waxtaan. waaw ah moo jiitu ci man moom loolu moom ñoo xam nga kooku moom loolu mooy loolu wax nañ ci wax ma xalaatam ma dégg ko bu baax. Hmm. yow loo jàpp ni moo la daan. waaw bëre ku ma war a daan rek mën ma daan daan ma te tamit ñeneen ñi ma doon daan mënoon nañ ma daan waaw parce que ki ma doon dajal champion la. mbër kaamil la ñu daje yàlla may ko ndam bis boobu. mais est-ce que bu ñu ñëwaatee tamit ci écrit bi nga bokk muy Fass parce que li ñu bëri seetlu écrit bi taxawaay bi normalul entraînement yi nangam nangam est-ce que loolu nekkul loolu xam ne mooy wàcc ci yéen bëri yi nga xam ne yéenay bëree combat yi ñàkk d'entraînement bu doy boobu ak boog ñàkk dajaloo bi. waaw tasaaroo écrit beeg yooyu noonu waaw loolu mën na am loolu mën na indi fay mais daal man daal pour man lépp lu war a am rek day am. mais egri Pass wax dëgg yàlla am nañ fa ay kilifa yoo xamante ne suñu président wax dëgg fa yàlla di daj ay coono yu bëree bëri bëri ci ñun Agri bi yiiteel ko trop mais xam nga rek làmb moom day toll fu nga xamante ne surtout gars yi différence quartier yi ñu dëkk ak ni mu soree ak yooyu noonu te làmb yi grand yi amuñu ay combat day xaw a tasaaroo xam nga yooyu rek lay doon mais Agri Pass moom dëgg yàlla am nañ fierté si suñu ay kilifa Mm-hmm. est-ce que depuis nga daanoo ba tey dem nga entraînement. waaw Pam Ndoye mi ngi préparé Serigne Ndiaye ak euh, Papa Sow dem ba rek fa la ñu jógee. Mm-hmm. comme li far am na lu ñu di lu jëwee tamit que ni Fass dafa am affaire de kii quoi maanaam ku parrain parrainage Gris 2 ak parrain Lac Rose parrain Papa Sow Gris Bordeaux ku nekk ak parrain yow am nga pare ah kon ne man maa ci ëpp pare ndax man xam naa ne ñëpp samay pare lañ ndax man moom mu yàlla musuma beroog kenn man moom li ma li man écrit man écrit phase bu njëkk ba sax xaw ma foon lu bari parce que entraînement ñibbi laa amoon entraînement ñibbi parce que man noonu laay doxee. yow kon amoo pare. non la mooy amoo pare man am naa pare Patrice Hébert auteur arc kooku moom mën na mbër mbër mën na am mbër mën na am benn benn parrain ba dix parrain ma wecceekoo ak sama benn parrain boobu rek waaw ndax mën na lu dix personnes mën parce que yàlla toujours rek bu la xañee lii da lay fàttali am na ñu la war a dimbali duñ la dimbali yàlla may may la koo xamante ne wóolu la woon dimbali bokkoo leen sax xeet bokkoo leen sax nation mu teg la foo xamante ne c'est impossible da ngay sax jékki-jékki jaaxle waaw di jël si yow ay décision yoo xamante ne di def ci yow ay financement yoo xamante ne da ngay sax jaaxle moo tax yàlla noonu la doxalee àddunaam waaw mais écurie moom ñëpp sumay papa lañ waaw. te actuellement sax laay wax est-ce que ñu ngi lay démarcher pour combat. waaw am na benn promoteur bu ma doon wax moo waxu Elton la ma doon wax xaw ma ak Abdou Diouf am na tamit ku ma woo di ma waxu doom dànku man daal benn parole la am mooy dem leen xooli adversaire boo amee adversaire bu ne waaw li woon daaw foog ñu teel kii ko fay ko suñu ay supporter fay ko nga yaakaar fay ko ci Elton mën naa yomb. non ku mu mënti doon moom dina di nga ko. Elton di bokk ku leen daan rëg-rëg ko daan daan dégg li ma wax ku mu mënti nekk bor bi moom yàggam dinaa koo fay. parce que ci na trop. man maa taxaw ci Elton. Hmm? man maa taxaw ci Elton. waaw moo tax ma généraliser muy moom muy keneen. Elton ku mënti jël sama avance laa la wax. di nga ñam. Elton combat ak Reug Reug ba ko Reug Reug di daani sonn na de Gris 2. waaw man déggoo li ma la man xooluma xooluma loolu yëpp xam nga kii ba mu lay daan la gën a sonn nag bii moom yooyu moom li jë man yooyu ganaawul ci man waaw man daal en tout cas incha allah le retour de Gris 2 loolu moom leneen lay doon incha allah. est-ce que li tax retour nga am ci ndam yaa ngi ciy liggéey. waaw bu baax baax parce que ñun amatuñu beneen amatuñu droit def erreur amatuñu droit def erreur. am na feneen foo xam ne dama fay dugg ak yow mooy ren làmb ji dañoo gis ne que dafa combat yu mag yi dafa yéex a taxaw donte promoteur yaa ngi démarche ñu ngi wax diw ak diw ak diw ak diw ak diw làmb ji lu ko téye. waaw làmb moom xam nga au temps presque ñun ñoo ko téyel bopp parce que làmb dafa amoon temps boo xamante ne làmb ji nee xumb xam nga mel ni kenn amatul loo wax lu dul violence buñ dékkee mbër micro mu naan violence bi si làmb ji buñ ko déggee promoteur mu koy wax buñ ko déggee membre du CNG mu koy wax te boobu violence amu fi parce que làmb tey sport yi nawetaan bi gën a tuuti si wàllum football sax chaque année nga dégg ci ay jëyee yoo xamante ne doo ko dégg ci làmb te duñ wax waxu violence mais ñun ñoo toogoon suñu branche ba pare yor sunu sii di ko siwee violence violence violence ba ku ko dégg sax ñuy wax nga teg na ay rayante moo fa am loolu tax kii yu bëri sponsor yu bëri retiré wu léegi nag ñu am ay problème parce que làmb promoteurs yi munuñu dem sans ay sponsor yu mag pour taxawal ay affiches yu mag loolu kese la ñun ñoo rey suñu làmb léegi nag comme que ñoo yàqal suñu bopp suñu deru bopp dañ ko jéem a wutal ay solution jéem a fexe ay pexe ba rafetalaatal der bi te gars yi xam naa ne ñu ngi ci mais daal waxu violence boobu bokk na ci li ñu gën a rey te kenn waxaluñ ko lu dul ñun suñu bopp ñoo ko doon wax waaw mel ni kuy wax farata te liñ doon wax existé wul loolu de doy na waar toog ci bant gor ko day boo daanoo gaañu moom loolu moom leer na naññi mais léegi tamit gis nañ fi ay combat yoo xam ne démarré nañ ko annoncé woon nañ fi Tapha Tine Ama Baldé dem ba dernier moment am yàqu-yàqu ñu annoncé waat fi Ama Baldé Modou ñu ne problème mu moo ko téye Ama Baldé comme li ñu am na ñoo xam ne dañ ne na jël 80 millions yi ñii ko fay 100 millions mi na ko yow loolu loolu loo ci wax ah <laughs> loolu moom yëfu boppam la xam nga laab moom léegi nit ku nekk danga am ay kilifa yilifoo sa bopp ndax xam naa ne moom bu desoon lu dul amaa rek xanaa doo topp Modou Lo boo wax ne bu yoroon beek sax da nga naan ko aywa ñu wax la ci waxu xaalis ngay boole si mu yor titre roi des arènes xam naa moom bu desoon ci moom rek xam naa ne dina bëre mais nag comme nga da am ay kilifa te kilifa yi déglu leen day baax waaw des fois yow sa xelu bopp rek moom du baax quoi. waaw mais yaakaar naa ne yooyu dina am bu ci taxaw ndax yooyu yëpp ay combat la. yow fi mu ne boo tey boo doon yow yoo gën a bëgg mu taxaw ci combat yu mag yooyu. waaw Ama Baldé Modou Lô boobu affaire boobu bu ko gars yi amoon moom dina neex waaw. Balla Gaye de ko koy jox moom. Balla <laughs> Balla Gaye Gris Bordeaux boobu kii bi dolliwaat bi boobu man neex na ma. revanche kay amoon ndam. waaw bi kon. waaw loolu demi ndam rek. demi ah, moom demi la woon demi. demi ndam amee noonu ndam. bala moom xam nga moom ku mën. ci bis moom da ngay xalangu. wala mu samp sa bopp bi wala mu samp moom xam nga rek ay affaire am <laughs> ah, jour boobu moom loolu moom moom sax moom xam naa ne loolu moom neexu ko. Ah. Mhm. mel ni moom moom tamit dina taxaw ci wumtu dama gis mu mel ni bëri na sa mbër yu mag yi ñu am ci yow benn estime lan la sa digganteek ak Balla moom ak yeneen gars yi damay gis ñu am ci yow benn estime waaw grand yi ñoom ñoo baax seen baaxu bopp rek boo waxee rek Gris 2 dafa yaru dafa yaru du ay yaru quoi affaire bi du noonu xam nga nit ku nekk rek ak li nga xam rek moom ngay wax moom ngay def ñun nii lii la ñu xam lii la ñu xam ay taalibe lañu mooy loolu te grand yi tamit gisuñu si ñoom benn yabeel bu ñu leen war a yeb ah, ay sport jiitu ñu si gën ñoo nekk star xam nga di ay kilifa ëpp yëpp ba pare bu ñu amee sew estime loolu ci ñoom la rek parce que duñu ay génération bokkuñu jotaay bokkuñu fréquentation xam nga ñoo lay gis rek xam nga à distance di la bëggee loolu ñoom ñoo baax rek. léegi Eumeu koo koy jox moom la dëgër loolu revanche la. ñu leeral. non loolu kay amul leeral. Ah, walla belle parce que boo xoolee mat si niil nañu ma daan. waaw loolu baneen tamit boobu loolu loolu day neex. tafaatin. booy ñaa loolu dafa war a am loolu yéen doo leen moo war a am dëgg. <laughs> ah tafaatin war a loolu dafa war a am defis la. Uh-huh. Mhm. Bombardier. Bombardier. Bombardier moom dafa bëri ay revanche même Bombardier Modou Lo bi loolu dafa war a parce que Bombardier dafa daanoon Modou Lo. mais su ma la déggee daa mel ni d'accord ci xale yi dëkk mag ñi nekkoon. ankay ankay loolu moo war a mag ñi bu ñu bu ñu bëriwul ren tamit xale yi dinañ ko loolu tôt tard la force gars yi ñoo leen fi jëlee loolu moom da ngay wiiri wiiri rek mais ñoom baala Gaye Modou Lo ni ñu fi jëlee gars yi noonu la leen fi gars di jëlee rek. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi su ma ñëwee te foo xam ne ni tamit dama fay dugga muy biir écrit face wala sax si sa koo xam ne sa kilifa la mën naa ne muy Papa Sow mu jël Siteu combat boobu noo ko gisee. waaw di ñaanal Papa Sow ndam rek waaw waaw moom xam nga dafa am ñoo xamante ne moom dañu am bis bu ne moo tax yenn bis yi moom doo ci xalaat da nga leen di ñaanal rek waaw ndax ndogal rek yàlla daal moo mën a jóge fële def contraire mais xam naa ne moom boobaa mbër la moo am foofu fekk mu ngi ci li mu war a nekk waaw moo tax dañ koy ñaanal lépp yàlla defal ko jàmm. mais ne ci li mu war a ak Siteu xale bu ndaw bii bari mbooloo dëkk Lamsaar ngeen dugg ci moom. waaw parce que Papa dafa am bis bu ne si Ama Baldé la jóge xam nga dem amitié Ama Baldé dañ jo kii woo yëpp te yooyu da koo yàgg bokk na ci mbër yi ëpp victoire ci làmb. waaw xam nga kon kooku mooy loolu moom bis yooyu du ko jaaxal ñaanal ko rek nga mën a def. Hmm. Papa ak Siteu dàq bëri. non nag dañoo yemul sax. yemuñu mooy. moom ku mag bëre rek moo dàq bëre. ku la mag bëre moo la dàq bëre. dàq bëre passage bi mu jaar ak yoon bi mu jaar géew yi mu dugg yëpp Siteu yeggagul foofu. duggagul tamit ci géew yooyu. xam nga moo tax ñoom ñaar mënu ñoo yem loolu Siteu sa bokk laajee mu ne la papa moo dàq bëre parce que yemuñu quoi papa ndaama la buy songu te li gën a te lam moom ku la dàq jàpp tànk moo la dàq bëre waaw ndax bëre bi gën a jafe ci àdduna mooy nit kuy songu téye tànk te papa sax day songu boole ci muy ndaama buy galgal di bitër ni muy nekk ndaama buy rappel di mbot nu ne daanee na ko mbër ci làmb